waaw xam nga man bima ma ñëwee ci ministère bi loolu laa tàmbaloon dem ci nit ñi waaye mbas mi dab ñu au mois de mars loolu xaw a gàllankoor sama sama dem ak dikk dama décidé waat jëlaat ko moo tax programmation yi ba ngeen programmation yi xat la ñuy def parce que dañoo bëgg dabu moo tax tey boo seetloo ñu ngi tàmbale ci suba ñu ngi woon ca mbaaw après midi bi ñu war a ñëw fii suba ñu ngi Bargny ñu ngi yeen semaine bi di ñëw dañ koy tegaat ci yeneen city liñ ciy jublu mooy dem fan nit ñi di liggéey yoo xam ne secteur bu ñu dénk la gën a xool lan la ñuy dund gën a waxtaan ak ñoom gën leen a déglu pour xam justement fan la ñuy parce que dañuy laaj ñu xool lan mooy baral relance bi donc forcément day am ay choix yu ñu war a def donc liggéey bi loolu la waaye fii bu ngeen seetloo li ma gis daal bi ma yegg bi ma wàccee Tëngéej bi rek dama seetlu ni dafa mel na dafa am ñaari camp yu yu kii te ñaari camp yooyu leer ñoom ñu fii la ñu liggéey kon li ma leen di ñaan mooy ñu doon benn du dëgg xam nga politique taxu ñoo jóg liggéey moo ñu tax a jóg nañu doon benn bokk liggéey bi bokk xalaat parce que ci la ñuy amee doole doole boo ko tasee doole amatul na nit ñi jéem a delloo si seen xel delloo ci li nga xam ne moo tax ñu génn seen kër ñoo bokk ko fi ñu jéem a ànd jéem a liggéey loolu loolu la